loolu àgg ba ci sëñ Abo Mbàkke bu ibnu sëñ Modou Mamoun moom itam waaye di loolu si ba ci ki xam kii mooy sëñ Saliou Mbàkke di xalifa sëñ Afiya Mbàkke mi nga xam ne bii kenn mënta wax lu baax tuddoo ko ndigal yooyu nag kilifa yooyu à tubaab fakal nag mooy si ba ci seen seenub sët seenub taalibe di seen xarit di koo xam ni kii soo ko gisee muy dox bu laaj lépp lu muy dox rek ci la koy defee muy kan di sëñ Làmp Mbàkke ibnu sëñ Modou Rokhaya mu sëñ Modou Maam Maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam waaye su ngeen déggee sëñ moo sëñ Lamp Mbacke nag xam ni bis bu mag boobu di benn bis rek ci at mi di màggalu kër yëlli ma ne nekk ci kàr Cheikh Anta Mbacke bis boobu moo jël si bis bi nag kañ la xanaa nag samedi fukki fan ak ñaar ci weeru mai ci quartier Cheikh Anta Mbacke ci kër yëlli ci bayaal bu mag ba nga xam ne fa la fi naka jekk waaye bis boobu nag di bis sëñ Lamp Mbacke di màggalu kër yëlli mañal dañ ko def nag ci présidence d'honneur kan alaaji fàllu alaaji fàllu mbàkke mu sëñ Bassirou Faty Mourid Maam def ko nag ci ndigalu présidence d'honneur kan sëriñ Cheikh Bombali di xalifa sëriñ Mbàkke Madina ca Touba def ko ci présidence d'honneur kan soxna Maam Bousso Mbàkke doomi sëriñ fàllu mbàkke ji ca Touba waaye def ko ci présidence moom sëriñ fàllu mbàkke def ko ci présidence d'honneur kan sëriñ Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Baara Mbàkke Falilou def ko ci présidence d'honneur kan xanaa sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général kullu Baye Fall waaye bis boobu de bisu màggalu kër Yelli te sëñ Lamp Mbàkke jiite ko ki koy teewee nag nga xam ne bii ci présence effective lay doon mooy kan mooy sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Rokhaya Mbacke ñaan yàlla mu yàgg fi lool te yàlla may kër ak mboolem njabootu sëriñ Modou Rokhaya waaye ñu koy def nag ki teewaayu kan sëriñ Maam Mor Gaye di xalifa Baye Laay Gaye nga xam ni ko wax maam Cheikh Anta Mbacke tudd ko waaye bis ba nag ñu ngi koy def ba tey ki teewaayu kan ah Ibrahima Fall di xalifa Serigne Modou Fall ndoom benn njànd waaye di ko defit nag ci teewaayu kan ki nga xam ne kii mooy Serigne Moustapha Ka ak teewaayu kan Serigne As Bayo Fall mi nga xam ni mooy xalifa Baye Omar Bayo Fall di taw bi yënd mañal ak ci teewaayu kan ak teewaayu Maam Cheikh Anta Mbacké njabootam gépp bis boobu daal di benn bis rek ñu bëgg ñëpp waajal ko bàyyi ko xel ndax mooy bisu kër yéen di mañal waaye mooy bisu kàttu Cheikh Anta Mbacké te bis sëñ nag su jotee moo tax mu woo ñëpp te waajal ko kon nag li ñuy woote ci bés bi kenn waxuñoo toog bañ ñuy woo sax xanaa jamono moo bari yëngu-yëngu ñuy woo parce que sëñ làmp moom wàccoo naa ñi ndax bés bu toll nii mu am ko du bésu baayam du bésu waa juróom bu góor du bésu waa daaru salaam mu toxal ko indi ko ci pénc mi ñun mënatuñ koo fay képp ku sant faal di góor ak jigéen war ngaa takk sa ndigg wuy ko génn sa kër jox ko gan yi fab sa alal def ci te boole ci di ko wax massa mbàkk ndax bés bu rëy la nga kon ñoom ci sama baat maa ngi woote képp ku sëtoo ci maleen ñu xam ne moo fekki woon maamam xomaat suñu mantoom bàyyi ko fi 1902 dem fekki sëñ Touba tey war ngaa ñëw fay njukkal sëñ sëñ làmp mbàkk yi wax naa leen ne sëñ Lamp Mbàkke buñ ko seete deret buñ ko seete xeet buñ ko seete woyofam buñ ko seete tuutaayam nañ ko seet ne mooy cërëb sëñ Touba ci pénc te kat sëñ Touba lu mu tagg ci sagaram jox la doo ko rëcc jox na suñu maam boobu ñu denc ko mu jox ñu maam bu sa Mbàkke doy mu doy nu sëñ Lamp muy niir pénc li defar kon nga sëñ làmp ñun deseeluñ la daal lu ñëw wuy si ñu ngi woo képp ku sant Fall baa nga bokk ci baa nga xeetoo ci baa nga daggoo ci baa nga yaakaar ko nga def ci lépp loo mën bés boobu bàyyi bés bii gën a ci bés yi fàttewut kenn koo xam ne yaa ngi bokk ci famille bi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te gën a mën muy def lool ci barke sëñ Tuubaa barke maam